mbokki Sénégal mbokki réew mi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 xëy na ba wax ci xalaatam bile combat li jëm ci wàllu bagaar mystique ba ci technique Zallo bàyyiwul dara bépp fànn bu expert di analyser combat moom Zallo bàyyi na ca xel moo waral mu départager Balla Gaye 2 ak B52 ci seeni technique seeni bagaar seeni mystique ci wàllu force la mu xamle mooy Bombardier moom dafa judd rek am force force am bii mu yor moom Bombardier yàllaa ko mooñaaleeg moom ci wàllu force ca côté Balla Gaye la mu xamle mooy 80 pour cent la toll bu dee Bombardier moom da koy la mu xamle mooy B52 mag la ci wàllu xeex yor yoo xam ne fu mu ko dóor buntu feeñ waral mu notal ko 10 sur 10 maanaam bu doon ci pourcentage danaan Bombardier bu dee Balla Gaye mu ne ci wàllu xeex moom xeexu mbedd lay xeex buy xeex du contrôler boppam day mel ni mboo jamkaani moom ba mu koy notel da koo notel bu doon ci wàllu pourcentage ñu ne 80 bu dee ci wàllu mystique moom sa loola mu xamle mooy ñaari mbëri yépp mystique volet boobee du Balla Gaye du B52 amul benn mbër mu koy négliger ku ci nekk lañ ca mën mooy waaye bu ñu fàtte ne it Boy 52 a bâti un grand technicien ñu ne ko kooku mooy kan mu ne kooku mooy Tapha kon ci wàllu technique la mu notel Balla Gaye mooy mooy ëpp staff Bombardier gis nañ taxawu gi ko magam Asin taxawu te bu ñu fàtte ne Bombardier dafa perte magam foofee ba muy noté dafa notel Bombardier 7 sur 10 maanaam 70 pour cent Balla Gaye la am 10 sur 10 ko zàlloo départagé ku ci nekk ca mbër yi jox bëgg a jël la mu moom ci combat bi war a dox ci digganteem ak Alain Ngalani muy Reug Reug combat capital boobee ca MMA la mu ca xamle mooy kafe ko foyewu ko reewu ko fula gu mat sëkk la ko jox gëdd gu mat sëkk la jox adversaire am di Ngalani waaye lam ca toftal mooy je suis confiant à pour cent am naa confiance ne bu ma jàppee Ngalani du doy yegg naa ci Singapour maa ngi ci jàmm ak salaam loolee mooy ay kàddoom waaye Camerounais bi bu dee ko ba sens su ci wàllum wii kuloo ba nag la mu xam mooy lu mën a nekk la lu jaadu la li daal solution la ci situation bii làmb ji nekk nekki waaye la mata souligner mooy amul kenn ku ko mën a def sans l'accompagnement de l'État ku koy defi day fekk état jàppale la gunge la li ko mooy boo ko defee da dóor sa loxo cëkk fa nuy jeexale mooy ca làmb Cees ak jàngat bu yaatu ba ca sunu làmb def sooxe ga làmb Cees di sooxe ci jamono ji ñu toll la ñëw ci ni mu gën a yaatoo la ko waral bokk na ci stade Lat bi nga xam ne doon koo jël jagleel ko football bi stade Maniang Soumaré nekk en chantier rax a jaxasoore yépp la fësal foofe jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon li gën a fës ceetu yéenekaay bi ñu leen jox mbokki Sénégal mbokki réew mi